ana mandaw ñu ko mandaw mu a mandaw doy julli mu a ko nee ko faal dañ kaa jëm ku mën sax ay jëm jëmu kii ne bàyyi ma ko xel sax. laaj naa ko ko jëm nag mu ne xamul kan la. après mu ne ma lan la faalu demoon bañ koy man xaw ma xaw ma sax kan lañ dem hôpital ba rek. après si lañ jël taxi ñu dem. ma dégg muy wax si dération naan oh, noonu oh, après ma commencé nag sama xel bi commencé ñaaw. mu ne mu ne Modou moom de ba nañ ko sauver waaye deret bi lu doon génnee dafa bëri.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 di ñaanal sunu kilifa diine ak sunu kilifa day di ñaan yàlla sunu borom dolliwaat réew mi ci eh, jàmm ci réew mi. tey nag ñu ngi fii yaraax eh, bu ñëwee yaraax nag li ko waral mu di benn xale boo xamante ni mu ngi wuyoo di sëñ fàllu à l'âge de ans eh, yàlla sunu borom dogal ñu jël bakkanam ci noonu nag li may wax people 221 du laajte ah ñu topp suñu information ànd ci ak ñi nga xamante ne ñooy waa wasaare ma leen di nuyu bu baax a baax ci la ñu ñëw fii nag kër gi nga xamante ni fii la xale bu góor bi dëkk pour fas yéene siq ak moom ay waxtaanam kii ñu doogal nag mooy woy juróom bu góor ah, du ñu def lu dul bàyyi la nga nuyoo ak ñii di la siibar. Ah, leen leen masaw di leen ku nekk si tur sant. Hmm. maa ngi dooleel di ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. ce que mën nga ñu ñëwaatal ci mbir mi naka la demee. waaw mbir mi nu mu demee rek mbiru mbetteel la rek parce que man xale bi yu ma koy mujjee gis si ngoon gi noonu maa ngi ko fekk mu si bopp koñ bi mu taxaw jugo si boor géej gi ma génne si kër gi di dem di delluwaat foofu may dellu ma fi boo koy ma fekk ma ko waa Fallou ni nga mel nii nag doo am songo ci mu ne ma damaa asi woon gaal xam nga sama rakk bi dafa am gaal. ci la nekk ci moom. ma damaa asi woon gaal man ko waa dama ko sang ma damay songu maa ngi di sangu ci après dugg ci ruq bi fekk ay booy noonu ba la ñuy tooñ continuer dem yoonam bi mu duggee si kër gi ba ñëw man ma jugee ci géej booru géej ñëwaat fii heure ndogu jot ma dugg ci kër gi ñu ndogu ma ndogu par man no moom du ñëw sama néeg si dégg maam lay toog. Mhm. mu toog si maam ndogu ba pare noonu man it ma toog sama néeg bi mu ñëwee dugg dafa ma yërnu sax dafa ñu war a dugg yërnu ma ma xool ko mu xool ma après mu di mu ne yaayam jox ma sama diw ma diw yootu diw bi génn dem tuggaat néeg maamam. bi mu duggee néeg maam nag après noonu man c'est ko mujjee gis man it ma ma ndogoo par noonu ma génn dem delluwaat toog booru ji foofu sama gars di waxtaan ni may waxtaanee ba si yàgg heure julli jot. dañuy julli géeyee noonu ma dem toog ma dem julli ci muy julli ba mu yàgg téléphone di sonné jëluma ko après téléphone di sonné sonné sonné am sama benn xarit bu ñëw jël téléphone bi wuyu bi mu ne ana mandaw ñu ko mandaw mu ne mandaw doy julli mu ne ko nee ko faal dañ kaa jëm ko man sax ay jëm-jëmu kii ne xel sax mhm. dégg muy wax si dération naan ndax jëm bi ndax jëmu la après mu dégg oh, di wax noonu na oh, e ma commencé nag sama xel bi commencé ñaaw ma julli ba pare mu jullee ba toog ma ne ko baabu lan la mu ne ma nee nañ faal dañ ko jëm nee na nga nga ñëw xaw ma lan ma ne ko ah ma ne ko ah madame Mbaye ma taxawal ma taxaw xam nga mu tàngal kafe jox ma naan man ni ma ko profité waaxu génn génn ñuy dem dem. ba moo ñëw ba gis si moromam mi ànduloo ma ma ñëw ne booy ana Fallou mu ne benn booy bi ne ma Fallou ànd ñu woon de papa man ndaw ma ne ko ah ma ma demaat beneen booy ma ko booy ana Fallou mu ne ma mu bëgg a daw ma téye ko ma ne ko booy kaay yéen a ànd Fallou yéen koy jël si kër gi chaque jour yéen a koy jël si foofu yow ana Fallou mu ne ma Fallou mi ngi fee dañ kaa jam mais yóbbu nañ ko man nag ah, ma xam nga ko jam mu ne ma xam na ko man ko léegi nañ dem nga yóbbu ma seen kër mu ne ma nañ dem après may may dem bay dem sama benn sama tante bi na ma bul dem dama hôpital nga xool sa doom ba pare man te man ma bàyyi fa booy bi kon ne dem hôpital di waaxu dem ci hôpital Maris bi euh, bi may dem ba génn pont ba jéggi pont bi jaasi roq bi génn ab sa ak sama frère bi ki mu nekkal si gaalam après ma ne ko Pa Fall mu ne ma ma ne ko ana Fallou mu ne ma Fallou mu a ma kaay ñu dox tuur mu ne ma Fallou affaire dafa me dafa metti jëm fi ko booy bi jëm dafa metti man la ko ah man ko fan la ma fu mu ko jëm après ñu dox ma est ce que am nañ ci yaakaar man la ko ah instant man am nañ ci yaakaar. amul ne man sama xel bi commencé jaxasoo ñu doxal ba mu yàgg dem dox dox yooyu mu ne ma kañ dem ma wax la ki ko jëm fu mu nekk xale bi fi ñu ko téye ñu dem dem mu taxawaat ne ma man daw xaar Fallou moom gis na amuñu yaakaar si moom de. ba ma waxee loolu ak silence mu sama moral yëpp damm nag taxaw foofu. Mhm. ñoom ñu continuer dem man ma taxaw rek booy saa yooyu commencé naa jaxasoo léegi mais expliqué ma booy fu mu nekk ñoom dam nañ ba yegg may a ma ñëwee ma dajeeg benn police ci kaw point bi ma ko pare ma ko chef ma ko dafa benn booy ma doon laaj benn booy bu jëm benn booy fii mu ne ma effectivement am na benn booy mais dama nga xool ci bi fële. Mhm. si la ñëw ci poste bi noonu mu yàgg fekk la ñu taxaw foofu après mu ne ma beneen police bi ne dam leen ànd jóobu nañ booy bi dam leen foofu ngeen xool ko si laa wàññeeku ma ne ko xaaral comme que ànd daa sori yoruma xaalis bi xaaral ma demal ba kër ga wuti di la xaalis si doxaat di ñëw ba fii ba ma ñëw fii man xaw ma sax lu xew man ndekete affaire bi am na sama am na booy wàcc na te yëguma ko ma kon ni dem ñëw ñëw jël si paas di dem ma ma toog dama ci biir gaay bi après sama na ma di woo policier bi ne ko kii mooy papa yu booy après chef bi na ma kaay ñëw ñu toog si ci biir sa kii maa moom pendant trente minutes waxul waxuma. Mhm. moom mi ngi toog rek jàpp ñaambur man te maa ngi toog man tamit maa ngi xalaatu moon sax ne Fallou wàccee noonu wala dina wàcc pour man daf may ñëw laaj ma affaire yooyu ma toog toog toog mu toog trente minutes waxul ma waxuma après c'est moo ko fekk affaire bi. Mhm. ñooñu bi noonu fekk ma toog ni maa kii bi mu dugg nuyoo ba mu nuyoo rek taxaw xool ma xool ko après sama xel mi ñaaw ma dégg mu mu mu xaw a dee kii bi kii wax ak moom si di ko liyaar après ne ko booy bi mujj naa kii ma ne ko ban booy moo ban booy nga mun a tekk ma ko ma ne ko ana faal daa wàcc après mun bi ne ma wàcc na mu ngi jaxasoo foofu di jooy nag may jooy ma mu di ma defal noonu na ma da ngay muñ àdduna amul solo ndax lii la yàlla na ci moom. Mhm. xam nga. Mhm. léegi affaire bi xaw ma daf kaa quoi ndax man Fallou nekkoon na sama nit koo xam wax dëgg yàlla sama nit la sama sama doom la am naa yeneen moo xam ne ay ñoo ko mag fuuf. mais nu meloon ci man kenn melu ko ci moom sama doom bi bu ma toogee fi fee la toog maanaam moom daf ma gënoon dugg day ñëw di bëreeg man ñëw mu ñëwee dama jox ma dara xam nga souvent jël sama poche dugal sama poche wala mu am ay paa ngaak ñi ngay ànd ay paa lañ di ma tooñee noonu. wóor na yàlla sama morom bu leen fekkee da leen def comme morom day ñëw jàpp leen jaxasoo yéen ay gaalu paa ngeen yorok di wax yooyu xam di kaf ak ñun di foo ñun. Mm-hmm. xam nga ibbee ko nekk nit ku baax nag. ba ci koor gi nii. Mhm. keroog man ko waa Fallou man a ko ma ndogu de mu ma dam wàññeeku ma ne ma ne ma ma toog ma ko bàyyi ma xel ma dem toog fële nekk rek boobu moom wiiri na dem jëli xaalis ñëw bi mu ñëwee mu may dox tam mu dem mu ne man daw taxawal moom du wax papa man laa mu ne man daw taxawal ma taxaw mu mu dikkati sabbi nii génne jox ma. Mhm. wóor na yàlla keroog ma loolaa jox yaayam ba ma joxee loolu ma laa yónnee man ko kii dama nga jox yaayam. xam nga mu jënd si mburu d' accord am na solo. Euh, tey mën nga ñu ñëwal ci ban anam la ko faatee dañ doon xuloo wala euh, na la mbir mi demee. waaw moom ni ko booy bi faatee maam xeexuñu nag ci li ma jot a jéggi fexe parce que nee na booy bi dañoo ànd man booy sax moom wax na loolu nee na moom Fall da ko doon tere gens. dañoo ànd ñu topp wala ñu yóbbu la sa yaay ñu topp après jiitu. booy bi tamit topp leen mu ko topp di ko bam di ko wax ni xam naa moo xaw tuusee di booy moo xaw tuusee li ko Fallou wax moo xaw a métti yeneen booy nag xam naa ñu ñu muy àndal waxuñu comme Fallou moo wax effectivement mu dem dugg si bitig bi wut paakaam te léegi ta Fallou bàyyi ko xel léegi bi ñuy dox dem ñoom ba dugg si ruq bi doo dugg si ruq mu dugg na si ruq bi rek ba mu ñëwee nag waxul daal daa ñëw rek fekk Fallou comme si ruq bi rek mu ñëw rek jam ko. Hmm. li booy wax mu ñëw jëm ko bi mu ko jëmee noonu su Fallou su summi bi noonu léegi mu sa summi booy bi ñëw tamit ko boo mu roccee paax bi affaire bi commencé dërëj sànni si li ñu ma man fekk ma mais li si la jam na ma ñu ma dégg boo ñoom waa ko bi ne jam na jam na ko di ko dimbali si boobu si laa ne wuy sama ndey dee si lu ma dégg lu gars yi wax man fekkoo ma dara affaire bi dama ñëw ñu ma expliqué rek ma ne wuy sama ndey naa dee gars yi commencé jël di ko évacuer di ko yóbbu te instant bi nga yóbbu noonu xam naa dafa sonn ndax nit boo ko jëmee fii xam nga ci xale boo xamante ne yow yaa ma gën a xam mhm. ñuy jëm duñu xam fu ñuy jëm te ay xale lañ mhm. lu ma gën a naqari mooy maam borom bitig yi ñu wax maam bu ndaw dugatee si bitig di jënd paaka. ñu hmm. éviter loolu. Hmm. parce que loolu baaxul. Hmm. muy man ak sama morom parce que man sama kaw la dal. nangu naa ndogal mais nag ëllëg moo tax may wax. nit ñi di bàyyi ci xel bu baax. ci borom bitig gi d' accord mais nemmeeku woo coow loo xam ne daan na am seen diggante wala yu demee noonu comme mosuñu lay kalaamee ni ñoom ñaar daan mhm. ñu naan Fallou Fallou mooy nekk mosul xeex mosuma dëgg yàlla mosuma gis xeex. Mhm. waaw amuloon coow amul dara moom xam dañoo ànd rek affaire tere rek xam nga doo ànd ak man doo ay génn doo ànd ak man. jafe mhm. boobu lañ jotee rek mu jàng mais Fallou musul xeex musul moo ko àtte ci xeex wax dëgg yàlla. Mhm. yan kàddu ngeen mujjee dénkante. waaw bu mujjee dénkante mooy ba ma ko Fallou dama nga songu ci mu ne damaa asi woon gaal après na ma bàyyi ma dem songu ci. Mhm. mu ko dem songu dugg na si kër ba fii waxul ak waxul man ba mu ñëwee ba mu ndogoo noonu toog moom lu souvent si maam lay toog maam kese toog ci mu ndogoo pare toog dug dugg foofu ñëwaat sama nekk daf ma xool ma xool ko rek baaxaatuñu nag ba léegi hmm. boobu laa génn woon ko ginnaaw tam ba ma déggaat nouvelle bi ñëw ñeneen jëm nañ Fallou hmm. waaw loolu laa ci am hmm. kese tey euh, tey mu nekk xale nga amoon ci moom yaakaar même bu doon fukki dërëm na yaakaar naa mu ngi koy jël di ko bokk ak yow tey nga xëy mu ñu ñu boom ko nii ci ci ci ci ci dogalu suñu borom naka ngay dundee mbir moom waaw métti na ma torop ndax wax dëgg yàlla Fallou moom dëgg yàlla teel na ma teel na ma sentir bu baax ci dimbali ma man xam naa loolu ci moom doon naa ko sentir nag ci moom bu baax a baax a baax a baax ndax mënoo jur sa doom mu am 14 ans am ay magam li muy def ci man defuñu ko ci moom sax ku dee ak sa bàmmeel parce que Serigne Touba. Fallou am na yërmande ci man Fallou bu ñëw bu bu jëlee bu am bu naroo ba ñëw day dem ci bu naroo ba ñëw maa la koy jox sama néeg laay toog yenn di dégg. après sama jar moom si ne ma Fallou de jox na la lii jox na ma lii loolu laa si mën na ma joxoon joxoon nii xam nga teel ñoo yërëm man te may bàyyi ci moom xel mais tamit nit bu la wanee ginnaaw ngay xam ni kii amoon na lu mu lu doon def ci yow. Hmm. amoon naa ci yaakaar trop ci moom wax dëgg yàlla xam maa ngi doon toog maanaam man mii bu ma demee ba mënatuma dara. Hmm. Fallou mooy yërmande ci man. ni hmm. dama yor man xam naa barke Serigne Touba Mbacke xamoo naa loo ci moom. dama ko doon sentir ci moom bu baax a baax a baax a baax a baax. moo tax ba affaire bi amee nii naqar na ma trop mais nag dama dellu lépp ci yàlla. xam ne sunu borom moom ko joxul ma ko jëlaat. te Fallou féete woon na foo xamante ne góobu nit dama ko foofu. yàlla xam na loolu. te góobu ma ko. xam nga mu doon nit ku jàmbaare nag nit ku jàmbaare nangoo liggéey. Fallou xaw ma dara lu moom moom dem ji yëre sax du ko sol. dem liggéey rek ñëw. loolu laa xam ci moom. mu am yërmande trop kafooree Fallou du def dara lu kafooree. xam nga nekk nit ku baax nit ku oyof nit ku laabir. mais loolu nag mënoo xam tànk wanu la ginnaaw mais sax sama kanam moom li ma doon gis ci moom nit ku baax la dëgg yàlla. baax tey ki tey ki jëf lii euh, dëkkandoom la wala wala wala wala dañu xaw a am euh, sorante. non sore woon nañ sorente nañ trop man xaw ma sax xale bi. waaw xamuloo ko souvent ñu ngi doon ànd ñoom ñaar. mais man ràññee moo ko sax ci ci seen boobu. d' accord euh, am na solo ñu ngi lay masaw. Hmm. bu baax a baax euh, di la ko jaale. Hmm. di ñaan yàlla na sunu borom euh, dolli sutura yàlla na ko sunu borom yërëm te jéggal ko. amiin fi mu la taxawoon yàlla na la fa sunu borom taxaw. yaakaar nga amoon ci moom yàlla na ko sunu borom mottali. Hmm. tey lan ngay tàggatoo ak tamit lan ngay wax ndaw ñi aussi tamit. waaw li may li may wax rek mooy maanaam ñu defaraat toogaay bu baax a baax a baax lii am na ba pare mais ku si nekk nag yaa ngi yaa ngi sàmm sa sa njaboot di ci wax lu baax di ci wax lu àq wax dëgg yàlla mais li am mu am ba pare mais li may wax daal mooy mooy ñun fii sunu sunu secteur bi moo xaw a doy waar. Mhm. pour nga defar fi nit day métti. ba barki démb avant lii am nii avant lii am nii. Mhm. fekk na sama maag sama benn sama benn gaan fële ñu ngi toog ci koor gi war a nañ na nañ leen da fekk booy di gens fee ñu escadre ñu dóor leen mais bi ñuy wax wax boobu dafa am yeneen wax yu judduwaat lu ñaan seen ku fa demee sa doom mi ngi fa te souvent ñi fay dem te man sama doom ñaan yàlla gisuma ñuy def dara man. Hmm. man boo ma juddoo ba lekk tuxu man naanuma geesuma du fa ma dara sama doom noonu aussi xam nga biñ nee nañ nañ dem ci taatu jàkka ji dàq booy yi am ñu ne waaye ba leen booy yi nga doo si bëgg a sori. Hmm. léegi nag quelque trois personnes ñoo demoon ñu si des ñëpp toog ñu toog léegi ba lii amaatee ci lañ commencé ne xamoon nañ ne lii dina am xam nga tamit ni tamit lu am am na pare. Mhm. ñu ne xamoon nañ lii na am. mais li ci man man man leen ba ma gis wax naa leen man leen man su affaire bi ba mu amee ñu ngi doon rajo di wax mais ku si nekk yaa ngi naan sa bàyyi leen ku nekk sa doomam ci xam nga léegi ba amee man leen lii kat xañ na sama kaw la dal. Mhm. mais man nangu naa ndogal mais ëllëg dina dal ci kaw keneen tànk lii jugewu fii mhm. ndax fii ñu yoofu ni sama secteur bi ma xaw doyaar ñi ñi koy def fii ñi fiy gens dëkkuñu fi mhm. dañ fi am ay xarit da nga gis benn kii kenn ñëw mu doon sa gaayan di ñëw foofu di formé formé bu bandi boo ko laalee mooy njëkk ne ci koñ bi laa dëkk mhm. baal jàmbur xam nga di wax wax yooyu tamit doo si bëgg a sori nga ne tekk jàpp sa njàmbur xam li nga xam xam nga man naa li may ñaax daal mooy ñu yaraan njaboot gi rek loolu kes moo si nekk xam nga jéema sàmmaat leen te xam ne ay ndaw lañ ñun ñëpp ay ndaw lañ xam nga mooy suñuy doom ak samay rak ak samay place boo ko yemale ku mu nekk daal na nga jéem a sàmm sa njaboot nga xool la fi ñu teg seen tànk. Mhm. parce que tamit àdduna dafa gudd tànk. Mhm. li ma dal li mën a dal keneen te ñaanu ma ko yàlla sax suñu borom yàlla na ko fi suñu borom yemale. amiin xam ñëpp di sant ñëpp. dafa nekkoon koo xamante ne yërëm na yaayam yërëm papaam. Mhm. maamam nag la féetaloon ma xaritam yi maamam sax yaay la ko doon ñëpp la yërëm ba ba mu fi jógee si man lañ ko mu yónni ndax dafa sawaroon yónneen foo ne Fallou kaa mu la du si baat. Mm-hmm. ñu yónni ko mu ñëw man li ma yeggalee reer sax moom moo ko jox. ma yeggalee reer bi ba ñu reer ba pare ñu toog noonu rek. ndax loolu julli nañ timis ba pare mu ñëw dugg si ba mu ñëwee sax xoolu ma daa dugg rek ne yor loxoom si saal bi ne ma ali am rek. Mm-hmm. génnaat man tubéy bu zone bi mu sol rek laa gis. après mu génnaat dem mais xam naa ne voie bi Fallou la. Mm-hmm. ndax man boobu jour boobu yëpp sama yaram bi daa diis. ma toog sanguma defuma dara ma benn waxtu lu ma rek toj ko may toj kaas yi si kër gi rek. après ma toog mu yàgg mu ñëw mu ñëw rek mbuus bi ñu ko jox mu ñëw na ma Aliou am kumba moo la ko jox rek génnaat dem après ba mu demee tuuti si kanam ma toogaat ay 30 minutes rek sama téléphone bi sonné ñu woo ma ñu ne ma Fallou de lañ jam Fallou Fallou léegi la fi jógee di mu ne lañ jam ana sa ma ne yaay mu ngi nii toog après kooku ne ma déplacé wul man tam ma génn ba mu génnaate ma duggaat si saal bi ma woo sama jëkkër ak sama tanta bi ma ne Diop Fall Amady nee na Fallou dañ kaa jam. laa naa ko jam nag mu ne xamul kan la. après mu ma lan la Fallou demoon xaw ma xaw ma sax kañ dem hôpital ba rek. après si lañ jël taxi ñu dem. ñu ñëwee nag ñu dugg si hôpital bi ñu fekk hôpital bi xonk cuur ñu koy fomp après ku ko yoroon nag ku ko yoroon dama koo xam fii dëkk montagne après ki ko yoroon gis ko mu mel ni ku jóge Seeraas. yërëm mhm. yëpp taq rek ma na ko yor ala mu ne Fallou mu ngi urgence bi xaar leen. mu ne Fallou urgence daa gis foofu nu mel la mu commencé di jooy. après ñu nekk ci hôpital bi yëpp ñu xool di jooy ñun tam xamuñu boobu xamaguñ ba xam dafa metti wala dañ koo rey rek. Mm-hmm. après man tam ma yoro laajaat ko yoro ne ma xaar leen mu ngi foofu après Omar Niang dañu dalal noonu léegi ma tourné waat rek yem sama nijaay bu mag bi ku topp si papaam ma ne ma ne Modou ñii duñu wax ak jigéen waaye dinañ wax ak góor kañ dem si salle bi nga laaj messin bi mais bu ñëwee nag après médecin bi mu ne ko fan ngeen dëkk après bu mu laajtewee Modou wax ko. fi mu dëkk mu laaj numéro ñu jox ko numéro bi après mu commencé di remplir formalité yi noonu man tamit sama xel bi ñaaw rek mu ne mu ne Modou moom de ba jéem nañ ko sauver waaye deret bi lu mu doon génnee dafa bëri jot nañ ko laaj turam sax ndax ba mu essayé si hôpital bi laaj nañ ko nu mu tudd mu ne Fallou rek biñ koy bëgg a sampal perfusion boobu gisatuñ benn ven après ci laa daw nag génn hôpital bi man. bi may génne hôpital bi après ñu demaat gendarmerie bi boobu sa papaam yëgagu ko sa papaam ñëw na gendarmerie ba fekk ñu fa ba commandant bi woo ko mu toog foofu ay 30 minutes xamu si dara après mu ñëw ma wax ak moom noonu ma wax ak papaam te policier boobu essayé faafaal ne ko kii nii mooy papaam après mu ñëw dugg si biir bureau policier bi toog foofu toog toog toog ay 30 minutes après policier bi doog koy wax ne ko ah mujjee gaañ moom si la koy soog a yëg après ñun tamit ñu ne ko nañu wan xale bi ndax ñun xamuñu xale bi te dañoo bëgg a xam kan la léegi boo nañu ko mu ne bàyyi ba suba ndax instant bi kii après ñu génnaat dem biñ ñu bisee nag ba si ëllëg sa ñu xëyaat man ak papaam ak jofaal ñu dem foofu après ñu ne commandant pour mu wan ñu ko commandant bi génne ko mais xale bu man xam xam naa ko bu baax ndax da daan ñëw ba sama kër fee ñoom ñaar ñu ànd ñu tàngal ceeb di ko lekk ma leen ni may ceeb ñu toog nii di ko lekk mhm. ndax Fall daa amoon yërmande si nit mhm. ku gis su ñëwee day dugg di lijjanti lu mu la jox nga lekk ak yooyu daa teeloon sopp wallaahi bëgg nit bu bëgg a dee ku mu romb day am si yow soxla ndax dalay tooñ ku mu romb rek dina la coqaas dem ñu bi amee ku nekk nee na man Fall romb na ma fii léegi tooñ ma ku nekk di ko wax ndax daa bëggoon nit amul woon benn benn jafe ak nit billaay da nee na fan yooyu yëpp daa xale bi naan kaan booy 15 doo ànd ak man man bëgguma kuy 15 di ko tere ndax ñun suñu kër fi yàlla dogal na ñu fi nekk ñëpp noonu lañ njabootee góor waaye duñu café ay cigarette duñu du ñu tux mhm. yooyu nekku seen affaire léegi nag bi mu ànd ak moom nee na mu jël benn xiir di ko dóor naan ko wax naa la nga bàyyi quinze quinze baaxul mhm. léegi moroomam mi àndaloon nee na ci la kooku daw dugg si tik bi jënd paaka bu cent franc rek mhm. ñëw jam ko ko ñu ko ko jamee rek ci la tëdd foofu après ñu ñëw jël ko yóbbu ko mhm. léegi buñ demee fii nii si si kii bi démb nijaayam ba mu nee na mu wax xale bi yow xam nga Fallou danga xaa jam mu dee mu ne Fallou Fallou deewul de Fallou sama xarit la xale bi nee na loolu la doon wax ndax moom conscient wul si lu mu def boobu 15 na ba xelam yëpp dem. Mhm. pare mu def loolu xam bu paree da koy réccu. Mhm. ndax kooku moos moroomam la 15 ans la am kii am 14 ans. Mhm. magante wuñ dara. bilaay. waaye Fallou wax dëgg ne yàlla dama bu mu dem naqari nañu torop. naqari nañu torop sax. bilaay. te yan seede nga mën a def ci moom. Fallou daa baax de dafa baax mën a reetaan loolu nit. billaay fu mu toog il faut nga reetaan même boo ko waxee benn affaire bu am ful la da lay coqaas di la kokkale ba nga reetaan. Mhm. billaahi ku mhm. ñàkk problème la Fallou du xeex du xuloo day tooñ rek di dem ay moroomu papaam ak ñëpp lay tooñ man ku ma vocal rek danaa ma fal lii la ma doon woowee fal lii la ma doon ku nekk dina la utal surnom billaahi mhm. dafa mën a tooñ nekk nit ku joyeux sax billaahi amul benn problème am na solo yéen ñi nga xam ne yéen àndoon nañ ñun dañu séewur du ñàkk ay seede yoo xam ne doon nañ ko ci def parce que dañuy wax ni euh, nit bu demee euh, malaaka yi dañuy wër di xool seede yi nga xam ni waa waa ak dëkkandoo yi ñu ngi koy def kon nag euh, ñu ngi koy jaale ay mbokkam di ñaan yàlla sunu borom yërëm ko te jéggal ko ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñi àndoon nañu ñu siiw